kii na sikar si dëgg alay sabari jërëjëf Abdou Garas Jatara ginnaaw bu ñu la nuyoo yow it ziyaara la màggal la ñu wax bu ñu nee màggal nag faw ñu tudd ku sell ki Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul ñu bëgg rek nga wax ñu diggante ku tedd ki ak màggal lan moo waral màggal gi ak nañ ko war a defee waaye. safar wi nga xam ni mooy weer wi nga xam ne ci la Serigne Touba génne woon Mbacke Bari liggéey li boroom ba bis ni ki tey ñu dem ba sëri ci bu toll nii bii mu ñu ci indil muy cant gii mu woote cant gi moom la ñuy tuddee baatu màggal te mu jóge ci sëriñ bi danoo wax ni bi ko mag ñi di woo wooyewaat tëbaskiwaat fee ci njaarim la leen woo ba ñëw mu ne leen tëbaskiwaat bi daa la tëbaski moom benn yoon lay doon ci at mi su ngeen ko waxaatee tëbaskiwaat kon day doon biddaa te man wootewu ma biddaa kon nañ koy wooyee màggal kon nag cant gi sëriñ Touba di sant yàlla di ci woote moo rëy ba ñu far ko tuddee màggal di ko màggal waaye cosaan li dëgg mooy cant te sëriñ Serigne Saliou Mbacke wax na ne baatu màggal ba taarixul basar yi muy histoire mbindeef tàmbalee ba nëgë ni ci yonent yàlla aadama ba nëgë ni nee ci Serigne Touba li mu sa du déggee baatu màggal nee ci wolof mu mel ni sëriñ tubaa mi ngi fi jóge woon 18 safar ci Mbàkke Bari liggéey li boromam ren ji fekkontoon na weer wi teru na àllarba yàlla day dogal mu dëppook nett safar bi Serigne Touba tukkee woon safar bi Serigne Touba tukkee woon àllarba la teru woon nga xam ne bi mu njëkkee bind xarajtu yow ma sabti raabian safar la njëkk bind li xidmatil muxtaar yi fii safari safar yéene na ma génn ci ñeenti fanu safar liggéey li sama borom ci jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam far mu mel ni loola taxut mu am waaye li ci gën a yéeme liñ ne mbirum Sëriñ Tubaa daray asaar amu ci bi muy génnaat saamina asar la lu ci nekk samedi lay dajal àllarba alxamis ajjuma samedi di ñeenti fan safar dimanche altine talaata àllarba alxamis ajjuma di fukki fan samedi dimanche altine talaata àllarba alxamis ajjuma samedi di fukki fan ak juróom-ñett loolu fi ne am na ikma bu ci am si ikma bi ci am mooy giir gi ñuy woowee bànnu Israël te yàlla wax leen ñu sant seen boroom soññu leen ci nu ci ci musta soññee kenn ndax bu dee nit ñi moom yàlla ne fas kuroo nii askurukum was kuroo lii ñëpp ko bokk nangeen ma fàttaliku su ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ñu ne yàlla du fàtte waaye boo ko fàttee mu fàtte fàttelu la waaye na ngeen ma sant te bañ maa weddi ñëpp képp koo xam ne ab jaam nga loolu dugg nga ci waaye nag yaa bani israila ñoom la woo ñu dégg ko uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa aw awfu bi aadi ufi bi aadikum wa iyaaya farhabuni yéen bànnoo Israël maa ngi leen di fàttali xéewal yi ma def ci yéen ku toll ni yàlla su fekkente ne dafa xool ak giir defal leen ay xéewal ba yëg ni santuñu ko ci ba mu dem ne fàttaliku leen xéewal yi ma leen def te am na kóllëre gu dox sama diggante yéen ba léegi sàmmagu leen ko te na ma ragal man képp ñu làng ci lañ àgg àgg ba yàlla ne leen sama géej gii bu samedi jotatee neen ko fi romb bu leen ci bu leen ci rëbbu samedi jot ñu gas ay ngaadew ay ay xunti mu jógee ci géej gi ndox mi di wal di ànd ak jën yi dugg ci biir pax yi ñu ne ñun laaluñu géejam géejëm la ñu tere waaye laaj laaluñu ko bis boobu ñu weddi sant yàlla nag nga xam ne sant gi leen waroon bis boobu ñu gën koo weddi lu tax Sëriñ Tuubaa génn ci moom dem liggéeyi li boroomam loolu équement baa ngi noonu nga xam ne génn gi mu waroon na génn ci ñeenti fani safar samedi la tollool bi mu demee ba ci fukki fan ak juróom jotee muy samedi Serigne Touba lépp lu ab jaam masa taxaw ci kanam yàlla bañ ko Serigne Touba bañ bis ba nga ko bañee taxaw na nangul ko fa yàlla kon bañ defee loola yàlla ci la leen soppi ay golo foqul naa fa qul naa lahum koonoo xiradatan xaasiina yàlla ne man yàlla ne doon leen ay golo doon golo rek yëpp doy na sëkk di tot tot doy na sëkk waaye nga boole ca torox taan yi na riigu toog doo mën a def dara boobu lay gën a téeméti yàlla ne ba ma ko defee loolu ngir lan fa jaal naaha nakaalan li maa bay na yadayha wa ma xalfaha damaa bëgg golo yooyu yi xamoon ne nit lañu tey jii ñuy tot tooti mu ñiñ mu doon ak ñiñ ñi te ci ñoom buñ xoolee seen kanam xam ne toroxtaane ñeel na leen suñ xoolee seen ginnaaw xam ne fuñ jëm toroxtaane ñeel na leen ak lan wa maw'izatan lil muttaqina ngir ñi ragal yàlla xam ne ñoom ay nit lañ te golo yi mënoon nañ koo doon te doonunu ko seen ragal yàlla di mën yokk ngir ñu mel leen cee waar sëriñ Tuubaa nag taxaw ci bis gaaw boobu ne bi bànnoo Israël bañoon ne duñ sant yàlla ba weddi ci yàlla ci ndigalu yàlla lu leen yàlla jox bu leen laal ma géej ñu gas ay xunti ne duñ laaluñu géejam waaye nag ñoom moom suñuy pax sëriñ Touba ñëw nag bis boobu mu génnee ko Mbàkke Bari dem liggéey li boromam euh, nattu yi mi ngi tolloog mi ataani wa xamsun wa samaanu sóoratul laxwaani la am ci laaya mhm. loolu la si Musaa wax sóoratul laxwaan noonu dañ mooy laan moom la olof naan laan waaye arab yi laxwaan lañ koy wax mi ngi tolloog ñaar téeméeri nattu ak juróom-ñett fukk ak juróom dañoo wax ne lim ànd ak tubaab bi lépp nekk Gabon juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer saa yu delsee ci at mi dañ koy multiplier deux tegandoog ko benn yoon biñ ko xoolee àgg na ci juróomi téeméeri nattu ak juróom-ñett fukk ak juróom nga xam ne su safar bu ne loolu lay xëyee ba ngoon jot lim lim ñëwaat senegal lépp loolu la nekkee bi mu nekkee gànnaar loolu la nekkee bi mu dellusiwaatee Jurbel loolu la nekkee ba vingt 1921 di woy safaru Bamsasine ci la xëy nag suñu boroom ne ko tey jii wax ko yónni saa ne ko nee ko tey jii moom ay nattu amul tey jii ak cant rek am mu xëy noonu ñu koy nettalee sëñ Moulay Bousso dañuy wax ne dafa def kaset def ab téere ngir wàcc ko ginnaaw ngir nit ñi mën a xam màggal gi nu mu demee moom la sëñ bi woo ne ko ndax am na daamar daamar léegi lañ koy woowe oto waaye bu njëkk mu mag ñi bu ñu ko mësaan wax li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem lañu wax daamar wala boog lu am ñeenti tànk sëriñ bi daal ne ko ndax am na fi mu ne ko am na bëy wu giir wuy joox soow wuñ la fi siyaare woon sëriñ bi ne ko demal nga weccee ko ci am xaaf kon saa su ne man déggee naa ci ne nit ki lim man saa yu manee la ko gën a kawe na ko def ndax xaaf mi moo gën bëy wi ba ci ci tabaski sax xaaf mi gën bëy wi sëriñ bi dem ndax bëy wi am ndawal sëriñ bi dem sëñ mu Moulay Bousso dem wecceekoo wax nañ ni séeréeri mbuddaay yi fa la ko wecceekoo ba mu ko wecceekoo ba ñëw wax nañu séeréer moom ba mu gisee bëy wi rek bëy wee ko gënal xaaf mu ne ci biir gétti gi dana ko seetal xaaf mu la soob nga jël ko indi ba mu ñëwee li tax Serigne Sall doon wax ne màggal gi bernde yi yoor yor la nee na xaaf mi Serigne Touba rayoon ci yor-yor la ko rey ba mu ko reyee bañ ko laajee lu yor yoor dana mooy li ñuy wax huit heures jëm kaw nee na yoor yor la ko rayoon wax sëñ Moulaa Bousso mu def ko ñetti xaaj joxe jox ñii nañ soxna Anta Bale Bousso ak soxna Aminata Bousso mi waajuru sëñ Fall sëñ Abdou Khadir ñoom la ko jox benn benn xaaj bi ñoom ñu jël ko benn bi ñu génne ko muy amul xeej ak seen jooju ñuy wax mu wax ni bu dellusiwaatee li tàmbalee ci ginaar bu ci gileem loolu si loolu si si Abdou Ndiang Wàlla Fall la ko wax li tàmbalee ci ginaar bu ci gileem lu ci waaye man na ma ko ci defal léegi loola na ko ñëpp xam waaye da caa boole ne koo xam ne mbégteem sama mbégte maanaam sëñ bi ñëpp la woo ni mu ko wooyee ci kàddu nga koy déggee nee na ku mooy bégge rek nga xam ne béggee nga ma rek bëgg naa sama mbégte mi bu ñëwee nga ànd koog man léegi sëñ Mor Talla li gën a yéeme mooy léegi sëriñ Touba bi mu wootee fukki fukki fan ak juróom-ñett nga xam ne mooy mooy disu safar ne li tàmbalee ci ginaar bu ci gileem gars yi bi ñu ko xoolee. tànk yi nga xam ne moom lañ moom la wax ñu rey ko ci sax mook 18 safari ñoo ñoo tolloo ñaar yu ginaar ñeent yu bëy ñeent yu xar ñeent yu nag ñeent yu giléem muy fukk ak juróom-ñett tolloog 18 yi loolu li mu tax ma indi ko rek Sëriñ Tuubaa daraam dalul asaar ndax lu muy woote ci yàlla la jógee directement ndax nee na ci yeewu yàlla ci laa yeewoo ndax ci yeewu yonent bi ci laa yeewoo taribtu bi anni kayisun bintibaihi wa anni rayyaanun bi asfa miyaahihi yonent bi ma yee ba ma a jar bi ma yeewoo ba ne jar nag ci ndoxum yonent bi lay naan kon lu feeñ ci yonent bi dana feeñ Sëriñ Tuubaa bi loolu amee mu xew ku fi mas a nekkal Sëriñ tubaa woote ko juróomi xalifa Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ay doomam lañu sëñ Modou Moustapha woote na ko ndax ay discours ba léegi mi ngi fi ndax dañ koo bind sëñ Fallou woote ko ci woote ni yooyu mu ko daa woote ba woote ko ci dëkk bi ku fekkewul loolu discours sëñ Fallou yaa ngi fi ci wàllu band sëñ Abdou woote ko ku fekkewul loolu band yaa ngi fi sëñ Abdou woote ko ku fekkewul loolu band yaa ngi fi Serigne Saliou woote ko ku fekkewul loolu band yaa ngi fi Serigne Saliou am na woote bi mu koy woote sax ci la waxee woon ni Serigne Touba neen ci ginaar bu ci gileem lu ci waaye am na ma ko ci defal sëñ wax na ko sëñ sëñ Fallou wax ko sëñ Modou wax ko Sëñ Xaadir wax ko Alaaji Baara wax ko sëñ Sidi Muxtaar wax ko sëriñ Muntaxa mii fi nekk yàlla na fi yàgg te wér wax